Khady colonel Guèye la ñuy àndal ci euh, li nga xamante ne moom mooy actualité euh, jëm ba tey ci mbirum people euh, ay ca ñu daal di ñëw ci mbir waaw mbirum euh, mbirum people euh, continuer également ci mbirum yoon wax ci ki nga xamante ne moo di euh, Ibou Touré di footballeur international ñu bari xam ko mais ñi ñi ñi ko gën a xam ci ay scandale peut-être ci coowal Ren je rêve la ñu ko xamee mu doonoon loo xamante ne cité woon nañ ci également ki nga xam ne moo di Wally Seck ba mu ba ñu placé woon ko ci contrôle judiciaire Euh, Ibou Touré euh, ñu xam ko également ci coow boo xamante ne doxoon na ci digganteem ak kii di Jojo euh, Chimère Diallo di sœur ci Katy Chimère Diallo bu un café avec donc Diodio euh, Chimère Diaw plutôt Diodio Chimère Diaw euh, di euh, sœur ci Kati Chimère Diaw donc bi yoon nag digganteem la ak jabaram ba jabaram yóbbu ko ci kanamu yoon ndax ci dañu nekk en instance de divorce mu waxoon ko verser chaque mois lu tollook 1 million 500 mais jabar ji remarqué que daf ko soit daf ko bañ moo ko tey wala wala teyu ko xamuñu mais en tout cas versé wu ko xaalis bi nga xamante ne moom la ko waroon jox ba tax jabar ji dem ci yoon mu ne nag li muy sàkku mooy mu jox ko un milliard cinq cent loolu la la ko jabar ji laaj pour euh, dommages et intérêts <laughs> euh, bu ñu euh, bu jógee duma ma ci sori parce que domaine nu domaine nu Pam Ndiaye la. <laughs> <laughs> un milliard hmm. comme quoi divorce itam mën na. cher ça keneen koo xamante ne itam am na ay lënti-lënti ak yoon muy lamiñ Faye nekkoon garde du corps bu président Abdoulaye Wade di également neveu am moom aussi dañu ko porté plainte ki ko def di waa Jojo Meuble parce que il y a un an këru yaayam dafa lakkoon donc meuble yëpp lakk mu dem vers ñoom interpellé leen pour ñu meublé waat kër këru yaayam ñoom également ñu am confiance ci moom meublé kër gi mais mu leen di dawloo ci bu ñu sukkandikoo ci waa Séné Séné Web Euh, plutôt euh, donc mu leen di dawloo euh, boobook léegi un an ñoom également ñu décidé ni dañuy porter plainte pour ko mu delloo leen xaalisam li leen nag waa tribunal de flagrants délits dinañu ci trancher le 11 janvier incha allah. bu ñu jógee ci ñu continuer ba tey ci domaine Pape Ndiaye. Eh, <laughs> wax ci eh, <laughs> mbirum justice donc eh, wax ci ñaari sœur canadienne yoo xamante ne ay sosie Kim Kardashian lañ dañu nduroo ak Kim Kardashian ñu jël loolu nag def ko atout di ko di ko commercer di am ñoo xamante ne dañu leen di def chantage lu tolloog 274 hommes d'affaires bokk na ci ay ay ay donc sextape la ñuy def ak yow après. <laughs> elles te font nga leen di jox xaalis bu bari euh, ci lool daal mooy seen métier ñu dem ba am vie de am ay yacht am lépp li nga xamante ne en tout cas ñi nga xamante ne dañuy liggéey ba am xaalis koppar bu bari euh, di am euh, dundu vie de rêve ñu dem nag ba def ko koo xamante ne benn milliardaire nigérien kooku nag moom il s'est pas mu boole leen police ba ñoom ñi lee seen nii dooree bi bu ñu ko mënee tuddee noonu fi ne échange nañ ko contre cellule boo xamante ne ñu ngi ko partagé ñoom ñaar c'est vrai que dañoo niróo kii. voilà ñu profité góor tamit. Euh, góor jigéen voilà amuñu kim am nañ si donc. dañuy fantasme ci kim vraiment ci kim gis suñu kim te yi pare ci lu ci grave ci scandale mooy am na ay hommes d'affaires sénégalais yoo xam ne dañ leen ci cité. voilà il a des ah mais toog nañ fi ay temps wax a une Gambienne euh, moom la ñu tuddee. c'est la Kim mm-hmm. bu hmm? ko invité à Dakar di ko këpp. Hmm. Euh, hmm? ah, scandale bi scandale bi ci net bi nee nañu ah, y' a des personnalités sénégalais yoo xamante bokk nañ ci ñuy chantage. bi sax elle est pas si extraordinaire que que ça. dama dama fekk woon xarit benn audience su Abdoulaye Wade Wade ak euh, convention des jeunes reporters du Sénégal bi Pape Ndiaye jiite léegi. Mm-hmm. bi ñu koy doog a créé euh, Ablaye Wade recevoir yi ñu toog di waxtaan ak ci bureau bi y avait ay Pape Alé Niang euh, Mariem Mbeng Babacar Sow Abibula Fall bari woon nañu en tout cas Ibrahima Ly Safay toog Wade ñu waxtaan ba pare Wade mu ne dafa bëgg nag waxtaan libre quoi ñu toog di waxtaan Wade wax lu am solo mu ne ndaw su ko yàlla dénkee ñaar yi mu dof xaalis ak pouvoir. ma yaa wax ne am na ay milliardaires yuñ ci cité affaire yooyu. Mhm. généralement y a des gens qui sont tellement riches que leur vie devient euh, ennuyeuse. il faut que ñu def dara finalement mhm. ñuy dugg ci yu ci yu mel ni. ci yu mel ni donc euh, su la yàlla joxe xaalis ak pouvoir daal et ce moment mooy góor ñi nga xamante ne toute leur vie dañu koy liggéey ba bu ñu amee xaalis man non dañuy bëgg a lâché wu foo rattrapé wu loolu laa lay wax am également à côté jigéen ñoo xamante ne yàlla may na leen moom mm-hmm. loo xamante ne ñoom jàpp nañu ni mën na leen indil xaalis soo ko ñuy ñuy liggéey di sonn ñuy ñuy retrouvanté wala daal. en tout cas ñuy mm. matal. Ndiaye am na solo. <laughs> Ndiaye <laughs> loolu procureur ci wax. day sama der rek day yàq sama der donc euh, ma génn cette fois ci euh, ci domaine Pape Ndiaye dem ci euh, Akon moom nag exemple la joxe bi la yoon ndaxte un milliard de dollars moom la jël ni daf koy financer ci ay projets yoo xamante ne Afrique mën nañ ci sukkandiku pour développer wu. mu amee idée bi ci voyage yu bari yi nga xamante ne moom la def di gis ni que pauvreté bi yenn dëkk yi di dund ak moom peut-être luxe bi nga xamante ne moom lay dund mu décider que dafay échanger loolu yëpp euh, daal di mettre pour l'instant carrière am de côté pour jàppalee dëkk yooyu nga xamante ne ñoo nekk fii Afrique mu nekk peut exemple boo xamante ne ñu bari war nañu ci topp c'est bien. Euh, bu ñu jógee ci loolu ñu tëjee ko ak euh, comme nu ma ko doon waxee démb ñu tàggu nañu 2016 dugg ci 2017 euh, am ñu bari ñoo xamante ne ci seen style bu bees ci lañu ñu démarqué woo par rapport aux autres mu nekk style yu am na ñoo xamante ne extravagant am ñoo xamante ne en tout cas style yoo xamante ne c'est différent de yi ñuy faral di di gis donc ñu tàmbalee ko ki nga xamante ni moo di DS Major je pense que bu ñu waxee style sax te tudduñu ko dina xawa jaaxal nit yi euh, mu solo woon ni nag ci euh, festival bu euh, ji hip hop ci kanamu des milliers de spectateurs donc changer coiffure parce que nekkul bii lañu ko doon gis mu koy def également sa façon de de s'habiller combinaison moom lu mu lu mu bëgg la je mm-hmm. pense que la différence cette fois du tàmm nañ lu moulant ci moom peut-être lacet yu si dënn bi et cetera ak ras de bi ku ku ne ci ginnaaw Cheikh Tidiane wala René photo la. <laughs> ça se comprend. René Charles Fall. en tout cas Moustapha tooga defaraat na toogaay bi. pourquoi je me comprends dama gis ni muy zoomé rek ma xam ne. nga xam ne loolu la. nga toogaay. <laughs> concentration. c'est vrai que boo bëggee xool da la intéressé foog nga. Mhm. yaay sànni ay pic Moustapha. en tant que doom bàjjenam ah. <laughs> baax donc euh, keneen également koo xamante ne marqué na nit yi ci style bi nga xamante ne moom la adopté ci euh, atum 2017 bi muy Daro Thiam daaro bu euh, bu dina ma neex moom également très sexy changé couleur cheveux bi nga xamante ne moom la teg li nga xamante ne nag moo moo yokk a tax ma choisir photo Daro bi certes style bi changé na par rapport à yi mu doon def moo di ci commentaire yi ñu bari dañuy laajte est-ce que daaro elle est enceinte ou pas lool moo loolu moo gën a fës ci commentaire yi. je maanaam ndax dafa ëmb. dafa ëmb waaw lii loolu lay niróo de. Hmm. wala daa reer suur ok je précise ci <laughs> tontoo rek ma may sama bopp. Charles Ba duñ ko poursuivre pour publication d'images contraires au bonheur. <laughs> Pam Ndiaye kat lii meurtre yu ñaaw amu fi nag lii moom lii meurtre yu ñaaw amu fi. waaw il paraît que c'est très très belle en tout cas. coiffure ah, euh, euh, euh, moom c'est très joli très joli même ça ça tenue. mais moom elle est mariée sax bu ko voilà donc question bi daal moom moo moom moo jaaxal nit yi est-ce que on s'en peut pas si c'est le cas on le saura. comme elle est mariée kay bu ko neexee enceinte. waaw booy seet nag yoon kenn nekku ci. dëgg yàlla en tout cas en tout cas cheveux rafet na naka lañ koy waxee. sa coiffure rafet na daal. voilà elle est très belle en tout cas ah. def temps def euh, macha allah euh, euh, ñu jeexalee ko. li nga xamante ne moom moo amoon fii Walf 31 décembre am koo xamante ne également elle elle a su se démarquer par rapport à style bi nga xamante ne moom la ah, indi muy également style bu bees boo xamante ne tàmmuñu woon di ko gis ak moom ah, et gisuñu ko également ci keneen ku dul moom mu di Nabou Yada tenue bi également ci ci coiffure bi lii en tout cas moom moo gënoon ñu fës ci euh, ci tenue yi nga xamante ne ñoom ñoo euh, marqué ci euh, ci début année année 2000 comme man nag c'est la première fois may gis coiffure bi pour l'instant nañu ko tuddee Nabou Xeer wala. Nabou Yada Nabou Yada voilà. en tout cas indi na style boppam ubbeekoo année 2017 bi tëjee ko année 2016 est-ce que dinañu gis coiffure bi encore dans la rue ou pas parce que fii Sénégal tàmm nañ lu star yi def rek. ñëpp topp ci aussi elle a elle a mais fii xam nga lu lu artiste def rek après le lendemain da ngay gis fan sam yi topp ci donc euh, sûrement. dinañu ñu liy am ci kaw scène bi du loolu ngeen doxantoo ci. en tout cas.